mun na am rapport yi nga xam ne moo am IG mun na am ay gars yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi seen biir mu ngi ci biir ñàkkul am na ñu ko wax de. Ah, am na ñu doon leer nag ñu génne ko teg ko ci <laughs> am na lu ñu ci dégg kon danga jàpp ne euh, président itam dafa nar a teg cooñ ci yenn ah! affaire euh, def na ko ba pare di ndax rapport IG yi gën gisagu ko hmm. tant que génnewu ko daal teg na ci cooñ. ah moom nee na amul cooñ bu mu teg cay dossier. kon nag na bàyyi rapport yi ñu génn ñu xam lan moo nekk ci rapport yi. ban euh, président institution moo fi def ay toxi doni wala ban euh, euh, ku nekkoon ci nguur gi tey nekk ci seen biir moom moo def ay toxi doni ñàkkul parce que rapport e yi dafa yàgg de bu ko fàtte. te diggante bi am na ñu bëri dawee nañ ci langu Macky Sall gi daw fekk ji ñoom Diomaye est-ce que defuñ dara. ok <laughs> Faluk Aminata Touré ci poste au représentant du président de la République noo ko gisee. Ah, xanaa cër la boo xam ne day ñàkk neex na ko parce que gis naa ko mu remercier président bi ci pal gi euh, jàpp naa ne day ŋàññoon nañ ko lool ñoom ñooñu de lan mooy représentant du président la République loolu du dara dañ ko jàppee woon noonu. envoyé spécial waaye moom nag euh, déet moom représentant la. boobu ma ne boobu envoyé spécial lañ doon ŋàñña. déet déet hmm. kii lu ñu ko defoon euh, Moussa Niass au représentant. Ah Euh, luñ doon wax naan naan naan naan mag la moo xam ne amatul njëriñ moo tax ñu teg foofu hmm. est-ce que Mimi mag la moo xam ne amatul njëriñ moo tax ñu teg ko foofu loolu aussi question la boo xam ne et puis lan mooy rëlam parce que gis naa ñu bind ah. biñ ko falee xaw ma moom la xaw ma ay gaayam ko bind euh, ñu def ci ay mission yoo xam ne c'est comme si moom rôle premier ministre am wala rôle directeur de cabinet président la république loolu itam bu fekkee ne. le président la République s'il doit envoyer des gens euh, en matière de diplomatique affaires de relations internationales il a un ministre des affaires étrangères le président bu fekkee dafa am ay questions yoo xam ne ko bëgg a traité digganteem ak sëriñ am na ministre de l'intérieur war na ko mën a dox président bu amee yu mu war a dox maanaam loo xam ne digganteem ak patronat bi am na toujours ay moyen yoo xam ne ci la war a mën a jaaree pour def ko. Mm. ensuite quand même le premier ministre a un la défi euh, la la la la en œuvre de la politique euh, lan la fi au conse euh, au représentant du président mun a jëriñ lu dul toog fa nga toog yor say grade euh, ak say kat kat kii sa sa carburant ak sa solde bu rëy hmm? bu ñu ootee réunion nga ñëw teew bu ñu amee cérémonie nañu jox la ron mais man gisuma utilité bi. gisuma utilité bi. est ce que mos nga dégg gis par exemple ku mel ni Jean Paul Diaz mos nga ko gis mu nekk ci dara hmm. est ce que Moustapha Niasse bi mu ko nekkee gis nga ko ne muy joué benn role bu dul. bu benn réunion est ce ñuy dox ci suuf te duñ Ah, kon kay kon kay bu mu bind ne lii lañ ma sant na wax ne rek ne maa ngi fi ci wetu keppaaru eh, eh, président Diomaye Faye lu mu ma sant rek ma def mm. léegi kon moom mooy bëkk néegu ba jabay daal. am na ci ci ni nga ko waxee nii. Mm. alors seen kuréel gi ñu jeexal ci bloc de libéraux et démocrates lan mooy seen objectif dëgg. wax naa la ko dajale njabootu libéraux yi ak démocrates yi ñu am benn cadre bu ñuy waxtaanee loo xam ne ci réew mi la jëm ñu waxtaan ci génn ci suñu xalaat. Mm. bu ñu demee ba wote bu jotee su fekkee ne am na ci ñun ñu bëgg a bokk ci wote ba ñooñee danañ wax ñoom seen bébét ci wote yi danañ seet kan lañ mën a àndal ci mboote yi bu boobaa ñu ànd def say def dànk seet naka la ñuy àndee pour proposer Sénégalais yi un projet boo xam ne day méngoo ak suñuy valeur foofu aussi dafa dafa war a leer ci bopp nit ñi. Euh, ñun dañoo gëm idéologie ñun waxuñ ñuy wax ne idéologie amul ñun dañu gëm idéologie nous sommes des libéraux sociaux. Mm. nous sommes prêts à être au centre avec d'autres démocrates. ñoo xam ne peut-être ils sont mën nañu daje ñun au centre pour gouverner maanaam euh, tous les consensus se font au centre loolu moo indi bu ëllëgee euh, kuy wax bàyyi ñu xel ndax nag ñi ko ñi ci bokk. Hmm. am na lu ñu représenté ci réew mi quand même APR réew mi Idrissa Seck. Hmm. bokk gis-gis Papa Diop. Euh, PLD Oumar Sarr. Yeesal Modou Diagne Fada ak yeneen i parti yeneen i parti UCS Balde. ak les mouvement comme sama genre yi nga xam ne ñoom amatuñ parti politique mais ñu ngi ci toujours di animer ay idées ñoom Abdou Fall je pense que c'est des personnalités quand yoo xam ne bu ñu dajale dina dalal xelu askan ñu bare bare bëri rawatina surtout njabootu Ablaye Wade gi nekk ci àddina bi nekk ci réew mi te xaw a jaaxle ci taxawaayu PDS à l'heure actuelle. lu tax PDS bu Ablaye Wade bokk ci juste. Euh, Karim Wade moo décidé peut-être bokk guñu mais en tout cas wax nañ ko. invité fois. ñàkkul maintenant dina peut-être évoluer xawma parce que gis naa bi ñuy defar livre blanc euh, gouvernement bi génn euh, PDS envoyé na délégation wala Ablaye Wade boog envoyé na délégation gis naa ku mel ni Alioune Diop. Mm. nekk directeur de cabinet président Ablaye Wade ku jege président Ablaye Wade ku déggal président Ablaye Wade ma gis ko mu teew foofu euh, signe la boo xam ne peut-être en tout cas c'est encourageant pour man li ma yaakaar. ok ñu ngi sant bu baax di leen ñanal week-endu jàmm. Mm-hmm. Euh, di ñaan réew mi jàmm di ñaan euh, maanaam politiciens yi gën a gën a bàyyi xel euh, lii njëriñu Sénégal te fàtte seen bopp tuuti te éviter man la man la ji te di privilégier waxtaan di rechercher consensus ba am jàmm. Mm. démocratie nekkatul rek démocratie électorale bu ñu wotee ba pare quelque que soit suffrage boo munta am da ngay bàyyi xel ne pour nga gouverner. dafay laaj ngay waxtaan. Mm-hmm. du parce que maa am pouvoir wala ma am doole que nu ma neex laa koy utiliser bu leen fàtte ne dañ ko daan reprocher maître euh, Macky Sall kon ñii nga xam ne mooy ndaw yi ñëw tey yorum réew mi euh, c'est vrai que seen inexpérience mun na justifier yenn erreurs yi mais nañ bàyyi xel ne am na ay mag ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi bëgg nañ leen jàppale ci xelal leen lu baax bëgg nañ leen teete wan leen li gën. surtout naka lañ koy doxalee pour ñu bañ a am yenn erreur yi euh, mu ñuy tardeel euh, coow yoo xam ne day indi fitna jaru ko euh, toog diisoo pencoo li nga xam ne moo am intérêt pour askanu Sénégal mm-hmm. y a des questions fondamentales yoo xam ne am ci consensus national dafa baax larme am nañ fi jamono xaw na am jafe-jafe xiiroo ngaayoo ci ay ñu ñuy wàcceeg yooyu ngir par parloo loolu noonu nañ ko bàyyi armée bi kenn waru ko boole politique gendarmerie bi pareil kenn waru ko dugal affaire politique euh, consensus autour de l'école set naka la ñuy def ba xale yi naka la ñu war a mën a jàngee mu gën a baax ñu def consensus autour de la démocratie autour des question électorales war nañ def consensus sur l'emploi des jeunes c'est important naka la ñuy def ba xale yi euh, di am nu ñu mën a xëyee def un consensus sur les politiques agricoles hein sur l'économie sur naka la ñuy gérer nos ressources naturelles mais y a tellement de thèmes y a de sujets yu xam ne euh, Sénégalais yi war nañ cee mën a toog waxtaan ci politiciens yi te bàyyi politique politicienne bi xiiroo ngaayoo wut place boo jotee place yaakaar ne da nga war a jël karawaas bi dóoree ko sa morom loolu je pense que c'est pas l'objectif de la démocratie objectif démocratie mooy euh, soo gañee wala suñu la gañee wala su ngeen wotee ba pare ngeen toog waxtaan France c'est un modèle qu'on le veuille pas la droite la gauche l'extrême gauche l'extrême droite vous vous imaginez ñu toog ba Marine Le Pen Macron ak quelque euh, éléments de de LR ak ñoo xam ne dañu bokk ci gauche bi war a mën a toog ne dañu dañuy former gouvernement mais c'est merveilleux pourquoi le Sénégal mënul def lu mel noonu. ça va se de l'essentiel. merci Abdou Diouf l'avait dit c'est maintenant deux notions yooyu ñu ngi gën a am sens tey l'essentiel et le consensus maa ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la comme ni mu koy amee toujours Babacar Gaye njiital mouvement Manko Muccu nekkoon ministre.